أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyoo nuyu lislaam nammanteeg ak yéen ci gëj a déggante gi jéggalu leen baalu leen ak ñoo ngi tàmbalee tey darsu siira assana assaadisa juróom ñaareelu at juróom benneelu at mu tolloog sulhu xudaybiya kon ki koy jàng tey di ko déglu war na cee xam juróomi mbir bi ci njëkk mooy sabab bi gaaroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu génn jëm barab boobu tudd xudaybiya ñaareel mooy taxawaayu waa quraysh ci génnug yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñett mooy tur ay noo ñi nga xam ne ñoo doon ambassadeur waa Quraysh yi doon dox ci xew-xew boobu diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa Quraysh ñooñu waa Quraysh doon yónni ci yonent bi naka la yonent bi jëflante ak ñoom juróomeel mooy naka lañu ñu gisee saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu leen jàngale woon ni mu leen yare woon ba keroog ku mel ne Usmaan ibnu Affaan bi ko yonent bi yónnee mu dem waa Quraysh ne ko wëral kaaba gi yow tawaafal defal sa umra amma yonent bi moom du ko fi defee om Usmaan daal di lànk ne man comme da ngeen a baare yonent bi man duma jiitu yonent bi mbokk jullit yi ci tënk bu gaaw li moo war a nekk tey sunu dars te mooy sulhu Hudaybiya mooy négociation pacte bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam signé ci barab boobu ak waa Quraysh nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ko jiitu dafa tëdd guddi di nelaw mu gént borom bi subhaanahu wa taala dugal ko mag muy umra moom ak sahaaba yi ko gëm yi ko topp ba mu yeewoo moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci gént gi gis na wattu nañ seeni bopp am nañu wàññi mu daal di koy xabaar jullit yi ne leen dey man de damaa bëgg a dem umra umra ak aj nag li ko boole li ko li tax bokkul mooy umra mun nga kaa def ci weer wu nekk amma aj dafa am weeram beneen bi mooy aj moo gën a yàgg umra ñetteel bi mooy aj farata la umra sunna la loolu mooy différence bi waaye yëpp mu ngay amee ca kaaba ga day am armal day am wër kaaba gi day am julli maqaama ibrahim day am safa ak marwa waaye nag du am arafat moom umra du am musdalifa du am minan mbokk yi du am sànni jamra moom umra yonent bi nag kon wax na saxaaba yi ne danañ umra ci arab yi waroon màkk yépp madina madina daa di buubu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi keroog génn na wa maahu alf wa arba umia ànd naag junni ak ñeenti téeméeri nit ci ay jullit ci atum juróom benneel ñoom ñépp ñu ngi armal jëm umra walakin na quraish saddathum waaye quraish te mooy yéeféeri màkk ba ñu yegee xew-xew bi daje nañ seeni ngànnaay seeni xale yu góor seeni jàmbaar jox leen ay gawar ay fasaki ngànnaay ne leen lool day bu amee gàcce gu rëy la ndax xam ngeen am na xew-xew bu dox suñu digganteeg Muhammad ay xeex yu dul jeex tey bu jékki-jékkee rek ne bërét dugg biir màkk loolu day nekk tey gàcce ci ñun ndaw yooyu ñu jox ngànnaay yi jox leen waruwaay yi wër nañ frontière u màkk baare yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu yégée ne baare nañ yoon bi mu daal di wàcc jaar yoonu xudaybiya wa nazala almuslimuna bi aqsa alxudaybiya yonent bi wàcce ci barab boobu daal di campé ah mu daal di tàmbali nag xool yan pexe lay def ba waa Màkka bàyyi ko pour mu dem umra ji xamal leen ne man xeex indiwuma damaa ñëw jaamu si yàlla waaye waa Quraysh comme ay yéeféer lañ te yéeféer moom xam ngeen ne lu ci jiitu ci moom mooy xolam day bañ xolam day wow ñoom yéeféer yi ñu lànkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëj seeni nopp ne duñu dégg yonent bi li mu wax ñu yónnee yonent bi benn waay bu tudd asfaan mu ñëw ci yonent bi fa jaahu yuxbiruhu anna qurayshan waa ji ñëw na ci yonent bi di ko xabaar ne ko waa quraysh day dañoo daje ci benn kàddu ci benn mbir mooy baare jullit ñi duñu dugg màkk duñ fa dugg nii rek ci mbetteel ci force te préparé nañ xeex ak yow yonent bi ndax waajal nañ xale bu góor bu jàmbaare bu tudd Xaalid ibnul Walid jox ko téeméeri fas ak ay ngànnaay ak ay jàmbaar pour mu baare la yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour doo dugg màkk wa qaala alayhi salaatu wassalaam hal min rajulin yaaxuzu mina ala gayri tariqihim waaw ana kan ci jullit ñi moo ñuy jiite jaaral ñu beneen yoon bu waa Quraysi xamul bu waa Quraysi jaarul yonent bi daal na def stratégie daal di jaar beneen yoon bi wuuteeg bi waa Màkka baare waaye ndeke waa Màkka xam nañ yoon yépp benn waay bi yonent bi waxee loolu benn waay bu tudd aslam mu ne ana ya rasulallah man yonent bi maa lay jàpp sa loxo maay jiite mbooloo mi jaaral leen beneen yoon bu waa Quraysh xamul noonu la jaar moom yaar moom waajooju fa saara bihim fi tariqi waaratin summa xaraja bihim ila al mustawa sahlin yamliku makka min asfaliha waa ji daan nay jaar ci xuriya jaar fi gën a yomb gën a jege pour dugg makka waaye ndeke xaalid ibnul walid xam na pexe bi yonent bi tëral falamma raa xaalid ma faala almuslimuna raja ila quraysh wa axbarahum moom xaalid ba mu gisee yonent bi changé na yoon mu daal di delluwaat ci waa Quraysh di leen xabaar xabaar bi ne leen kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam changé na yoon bi jaar na beneen yoon ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoon boobu mu jaar dafa am place bu mu yegsi rek place bu tudd Xudaybiya gëléemam googu mu waroon te mu tudd alqaswa gëléem gi daal di yës lànk bañ a jóg ba gëléem gi yësee nit ñi coow daan ne gëléem ngay ñàkk kers tol na yonent bi di ko war gëléem gi moo xamadi gëléem gi moo ñàkk yar moo réew yonent bi ne leen déedéet loolu du jikkoom ma xalat wa ma zaka bi xuluqiha gëlëm gi mësta dëgër bopp mësta simmeeku yoon wi mu sol ndax lool du jikkoom walakin xabasaha xaabisul fiil gëlëm gi day li lànk mu tax mu bañ a dem mooy la téye woon ñeyu abraha ya keroog ba ñuy toji kaaba gi looloo téye gëléem gi tey te gëléem gi am na lu mu yëg looloo tax mu yës lànk bañ a dem amaana ne dafa yëg ne barab bi tey mooy nekk barab bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jaamoo yàlla di defee umraam googu mu fas bëgg umra ci mbokk jullit yi bi mbir mi amee waa Quraysh tàmbali nañ di yónni ay nit ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam par kenn kenn yónni nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñetti nit kenn ku nekk bu ñëwee day indi pexeem ki njëkk a yónni mooy xulays ibnu alqama sayidul ahabis yónni nañ ko mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëral ay pexeem yonent bi daal di koy jëli mu daal ci génn ñu daal di yónniwaat keneen ku bokk ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëli ko Humayra ñoom ñëpp kenn ku nekk ku ñëw lu muy wax pour yonent bi delluwaat bañ a dugg xura bañ a dugg kaaba gi bañ a dugg Quraysh yónni nañ Mas'ud as-Saqafi moom it ak ay pexeem yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne ko ci ba ñu yónnee ñetti nit la yonent bi yónni kenn ku tudd Usmaan ibnu Affan radiyallahu anhu wa ardaahu yonent bi yónni na Usmaan ne ko ñëwal nga demal ma ci waa Quraysh nga woo leen ci lislaam nga xamal leen ne man ñëwuma pour xeex dama ñëw pour def sama umra Ousmane dem gars yi sokkatoo ko ne ko umraal amma yonent bi dafa dugg Ousmane lànk gars yi daal di koy jàpp daal di tëj xabaar ba tasaaroo ba yegg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam anna Ousmane qad qutila ne Ousmane day rey nañ ko ca mag te yonent bi ko yónni woon ba yonent bi yégee xabaar bi moo saxaaba yi ci keppaaru garab ga nag fada ila al bayati fa kaana bayatu ridwan taxta shajara ba yonent bi déggee déggee xabaar ba tasaaroo ne ndawam la Usmaan ibnu Affan ndaw la mu yónni woon ca waa màkk ndaw la waa màkk rey nañ ko yonent bi woo leen ca garab ga ñu toog muy jaayante ak ñoom ne bu fekkee xabaar bi dëgg la rey nañ Ousmane kenn ci ñoom du ñibbi ñoom ñëpp danañ dee tey ndeke xabaar la woon rek bu tasaaroo waaye Ousmane reyuñu ko kon lu am suma daa Ousmane wa xasalat mufaawada bayna almuslimina wa quraysh intahat bisulxi almaaruf bisulxu xudaybiya Usmaan dellu si nawaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk na yonent bi ba muy jaayante moom yàlla xabaar na ko ne Usmaan faatuwul nan la ko yàlla wonee naka la jullit yi xamee amee yëg-yëg ne yonent bi day am na lu mu yëg ci xabaar bi mooy yonent bi dafa tàllal loxo ndey jooram yi saxaaba yi di ci teg ku nekk naan ko jaayante na ak yow bis bu ñu rey Ousmane danañ ma rey ci li ñu rey Ousmane kenn par kenn ba góor ñi jeex tàkk bi góor ñi jeexee yonent bi daal di jël loxo càmmoñam daal ne bii mooy loxo Ousmane ndeyjoor bi mooy sama loxo maa ngi jaayante kon yonent bi xam na ne Ousmane faatuwul bu Ousmane faatu woon kon du jël loxo ndeyjooram di ko jaayante ak loxo càmmoñam naan loxo càmmoñ bi mooy loxo Ousmane bi góor ñi jeexee jigéen ñi commencé jaayante ak yonent bi yonent bi laal benn musuwaar musuwaar boobu ñu jox ko jigéen ñi ku nekk mu teg ko ci loxoom waaye yonent bi musta tegoo ak jigéen loxo mbokk jullit yi mbir maa nga jeexee nag léegi signé nañ benn pacte benn këyit diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waa Quraysh loolu la fa Ousmane indiwaat waaye pacte boobu loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam siñanteeg waa Quraysh dafa am ay charte ay charte yoo xam ne ku amul xel ku ne bu ko déggee day yaakaar na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa alag jullit yi wala dafa alag diine yàlla ji waaye léeg-léeg li yàllay dogal xel du ko mën a nangu te mooy li am te njëriñu diine ci nekk waaye yenn saa yi xel moo ko dul nangu wala ngëm-ngëm gu dëgërul du mën a gëm loolu ndax day wax ne lii baaxul moom loolu la gis waaye yàlla moom li mu xam li ginnaaw ci ginnaaw loolu waa ji naan baaxul lu baax a fa nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy signé kayit gi jàppante na sax ak saxaaba yi ndax ñoom dañoo gis ne lii baaxul yonent bi xam na ne moom yàllaa ko yónni lii lu baax la waaye ñoom seeni gis-gis dafa gàtt bokk jullit yi doomu ndey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala sart yooyu incha allah dimanche bii di ñëw moom la ñuy jël def ko dars ñu ñaan buur yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp mu nangul nu nangul leen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh